Thiam production moo nu fi woo bu tombeek dimanche 25 décembre di bisu Noël di ci nuyu suñu mbokk chrétiens yi di wax yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi waay di nuyu waa Baobab door ñi nga xam ne ñoo tànn Fadel boole ko ci ñi nga xam ne dañ leen a décoré démb barki démb fee ca Blaise Senghor ma jëlaat trophée bi ak ndam lépp jox ko ci loxol bonne volonté yi képp kuy jàppale Fadel ci liggéey bi yaa moom teraanga ji di nuyu équipe Dakar Buzz ndax su nit ñi mënee reconnaître Fadel ba koy defal teraanga grâce Dakar Buzz moo tax rawatina Dakar Buzz social di jël teraanga ji di ko teg ci loxo suma jumo Pam ña ak képp bonne volonté rek teraanga jàng noonu Fadel moomu ko yéen a ko moom ndax bu nu sargalee Fadel yéen la nu sargal ñàkk jëriñu ak ki nga xam ne moom mooy Jackson numéro 2 ñaari xale ñu ngi bëri lànk ñàkk jëriñu tànku ndejoor Jackson tànku gos Seydou Sibral ñàkk jariñu Jackson ñàkk jariñu Jackson ñàkk jariñu Jackson ñàkk jariñu Jackson lii xew fi eh eh ndax Jackson da ngi dóor ndax kaaw du am Jackson da ngi dóor Jackson da ngi dóor Jackson da ngi dóor Jackson da ngi dóor ndax kaaw du am Jackson da ngi dóor raak raak Jackson a ngi dóor ndax kaaw du fi am ndax dóor mu daan du fi am ña ngay xeex ña ngay xeex ña ngay xeex ay waay ji laa ilaah ay waay ñaari mbëri xeex nañu ñoom ñaar ba génn saako yi jak ñàq ñàq lu muy wax ñàq lu muy wax ñàq lu muy wax ñàq lu muy wax tey dama ne ku wu wul làmb dootoo mandi làmb ñàq jaruñu Jackson ñax dem na Ardo ñax dem na Ardo ñax dem na Ardo ñax dem na Ardo ñax jar dem naar ardo mënta ñàkk xeex bi daa sax te yàgg Jackson tam dem na Ardo ñaar ñëpp dem nañ Ardo. ñoom ñaar ñëpp dem na xeex mënu cee ñàkk xeex bi daa sax. mënu cee ñàkk parce que dama ne la lii mënu cee ñàkk ñaari xeex bi daa sax faaw ar bu taxali ko faaw am ku nàcc. ku mandi wu laam dootoo mandi laam. Ah, kenn day moom. waaw. ñàkk ma ngay wax ak supporters yi ñàkk day bëri sax di communiquer. ñàkk jariñu am na avertissement benn Jackson am benn arbitre sifflé waat na diggante ñàkk jariñu ak Jackson ña ngay bëre lang ña ngay bëre demee wet saa ñu demee lang ñàkk jariñu Jackson ñàkk jariñu pied droit Jackson pied gauche ak garde bi ñàkk jariñu Jackson xeex nañ ba génn saako yi léegi kenn ku ne dem ardo ñaq jariñu ak Jackson di ñaari xale yu ñemente tey fii ci arène nationale mu tombeek ñaq doona doo lu muy def lu xew lu xew lu xew lu xew dóor tànk ndax dara jalaam daraam ndax ndax jëlaam na ndax jëlaam na jëlaamul de ndax na jël amul de ñene Jackson daan na ndax wóor na ndax kat appi am na ndax kat appi am na ndax kat appi am na est-ce que jël am na yaa am na ah.